amul incident amul dara wala boog bu amee bariwul donte loolu observateur yi ko war a wax waaye boog gisuñu ko ndax nag euh, poñ poñ boobu li opposition bi waxoon ne ministre de l'intérieur waru ko organisé du nag wax joo xam ne nii war nañ ko dépassé euh, bàyyi ko nag muy amal xam ne nag def rek la ci am wala boog amal rek la ci am waaye boo soo loolu jogante yi nan nga ko mën a gisee ci loo xam ne pare nañ ku nekk taxaw ne yaa jël yaa majorité ci assemblée. waaw jërëjëf euh, Pape Maguette bu ñuy jàngat élection yi pour man il faut avant fond bi maanaam ñu naan kii moo gañe kële moo gañe war nañoo waxtaan tamit ci forme bi euh, maanaam nu ñu ko organiser euh, il est vrai que le jour du scrutin man bokkoon naa si ñi nga xamante ni nanguwuñu woon a sax def pronostic parce que dama doon wax toujours ne man tant que dem nañu ba midi te tawul partout au Sénégal dinaa mën a xëy na wax ne kii laa yaakaar ne mooy gañe wala kële parce que élection bu ñu organiser ci diggu nawet mun nañ ci am quand lu ñuy ragal d'autant que 2017 euh, bii passé gis nañu ci ay gox yu mel ni Touba ba fa ngelaw la jugee ay euh, abri provisoire yu bëri yu ñu prévoir woon pour vote daf ko yàq dañu mujj naaw mhm. ànd ak bulletin yi mhm. moo tax bi ñu ko defaatee ci nawet bi ñu mel ni man amoon ci euh, xel ñaar léegi euh, bu ñu demee ba nga xamante ni 31 juillet au soir mun nañu wax ne alhamdulilah puisque ragal yooyu ñu doon ragal que taw bi euh, am doole am doole ba non seulement mën na yàq euh, nu mu tuddati centre de vote yi am lu mu fa déranger mais également mu empêcher sénégalais yi ñu génn dem vote ji mm-hmm. loolu mun nañu wax ne amu ci donc euh, ñu koy euh, euh, sante borom bi mhm. parce que ndox mi moom moom moo ko yor mhm. léegi bu nekkee par rapport à l'organisation en tant que telle loolu dama koy situer en amont et en aval mhm. maanaam li xew avant élection yi li xew avant élection yi toog naa ci plusieurs plateaux ma di ko wax ma ne élection yi ñi nga xamante nii ñoo yor organisation bi man jàpp ma ne ñoom ñoo ko war a yor Euh, déjà ci DGE laa njëkk a wax que euh, ñi fa nekk ay subordonné wu ministre de l'intérieur lañu te ministre de l'intérieur euh, wane na ci bu yàggul dara que dafa far parti au pouvoir la nekk coalition au pouvoir la nekk donc ñooñu biñ ne ñoo koy organiser sama xel ñaawoon ci d'autant que bu nekkee sax ki koy organiser mën nga quelque part nga ne kii est-ce que moom na boppam wala moomul boppam nga ne mais am na ñoo xamante ni ñoom ñoo ñoom la ñu jagleel ñu contrôler élection yi superviser ko de sorte que même bu waroon a am lenn loo xamante ni jaarul yoon ñoom ñooñu di superviser dinañ si jàpp ba du am on a vu que ñooñu waroon a def loolu muy Sénat ki nga xamante ni moo leen jiite wax naa ko fi waxati ko fi depuis plus de onze ans la waroon a jël retraite am à la tête euh, mmh. defu ko donc ñu gisaat tamit quelque part ak euh, décision yi nga xamante ni conseil constitutionnel jël na ko. Mhm. parce que dama ne bu nekkee kii organiser élection yi. Mhm. ki koy superviser ça pose problème au moins kay arbitrer. Mhm. war nañoo mën a compter ci moom que. bu desee lu dul arbitrage dina joxe verdict boo xamante ni kenn bu ci am looy. Euh, xaar may xa yàlla. Euh, on a vu que décision yi mu jël nii. maanaam diviser ay liste ne suppléant ak titulaire def na ci uni différence ba bii war a mën a dem bàyyi fa bële ma ne loolu je ne le te loolu amul ci benn texte boo xamante ne nii conseil constitutionnel mën na wax ne ci la sukkandiku pour daal di décider loolu donc soo boolee woon tous ces éléments là man bokkoon naa si ñi nga xamante nii amoon nañ xel ñaar quant à euh, la bonne tenue du scrutin mmh. mais mm-hmm. également la sincérité du scrutin mm-hmm. te déjà mm-hmm. euh, li li mooy expliquer noonu par rapport ak suppléants yi nga xamante ni dañ leen a tàggale ak titulaires yi tey dina tax assemblée générale assemblée nationale bi nga xamante ni Sénégal dinañu ko fal du am les principales figures de l'opposition loolu moom c'est déjà un fait parce que bu ñu nee opposition Sénégal Euh, ne ñan ñooy ténor yi mënuloo ci génne Ousmane Sonko mënuloo ci génne Déthié Fall mënuloo ci mënuloo ci mënuloo ci tey jii nii ak ay dëmbooj ak ay consort tey jii nii ak organisation ak liste yi nga xamante ni conseil constitutionnel xaaj na ko dinañu am assemblée nationale boo xamante nii ñooñu gën a fës ci opposition bi duñu ci bokk léegi nag maintenant par rapport ak euh, organisation matériel bi ci jour bi donc on peut quelque part déplorer des manquements par ici ñu ne par exemple à Touba am na ay bureau de vote yoo xamante ni jusqu'à gisuñu kenn ñu ne par là am na ay couac yoo xamante ni ay nit ñu bëgg a voter mais seen centre de vote bañ fa demee dañu leen du fii donc ay couac yoo xamante ni am na mais ma dama jàpp ne loolu yëpp soo ko dajalee amul solo am solo ba mën a wax tax ñu ne organisation élection yi ni ñu ko defee baaxul bu ñu waxee loolu liñ ciy teg mooy a féliciter Antoine Diome ci organisation matérielu élection yi mmh. parce que quand même contrairement ak yeneen année yi nga xamante ni dañ daan toog ñu ne euh, euh, coalition bi à midi seeni bulletin jeex na ci bureau de vote yi mmh. amatul mmh. loolu on ne l'a pas vu cette fois-ci ci passé ci élection yi passé toog nañu tamit ñu daan gis te loolu yàggul dara Grand Yoff gii rek ci élection locale yi passé dañoo gis ne ci ay euh, ay mool yu ñu teglante la ñu teg urnes yi urnes yi donc élection yi gisuñu loolu donc bu nekkee ne éléments yooyu yëpp boole nañ leen mun nañu wax ne quelque part organ euh, élection yi organiser nañ ko euh, de manière acceptable maintenant si fond bi par rapport ak euh, résultat yi donc man li ma li ma jàpp mooy que amul woon benn coalition boo xamante ni waroon na génn di wax ne moo gañe lii wala lële te xaaruñu ba euh, comment dire commission nationale de recensement des votes bi nga xamante ni moo war a joxe résultat provisoire yi wax donc on a vu que <laughs> la coalition Benno Bokk Yaakaar ci guddi gi mhm. commencé gul sax ci guddi gi parce que euh, ci bëccëg gi RTS bi nga xamante ni Sénégal yëpp ñoo ko bokk mhm. mu am benn débat bu am foofu nit ñi di waxtaanee résultat vote bi nga xamante ni mu ngi doog a jeex mhm. seen directeur woote mu ne bàyyi leen waxtaanu cohabitation bi ngeen di waxtaanee bu minuy jotee Benno Bokk Yaakaar dina joxe résultat yi. tout mu nekk wax joo xamante ni loolu moom dégg nañ ko parce que waaw mais c' est très scandaleux mm. parce que Benno Bokk Yaakaar mënul joxe résultat yi mm. Benno Bokk Yaakaar ci compétition la bokkoon mënul nekk arbitre mm. donc bu demee bay wax li nga xamante ni moo ko concerné lay wax mënoon nañu comprendre mu ne Euh, ele euh, ñu def sortie apprécier le déroulement du scrutin mhm. expliquer ci taux de participation bi nga xamante ni ñu bëri jàpp nañ ne c'est très faible mhm. mais quant à wax ne maa gagné trente départements. Mhm. te quelque part joxewuloo sax chiffre yu mën a justifier que ne trente départements yooyu nga wax yaa ko gagné. donc loolu quelque part indi na. jiixi jaaxa ci élection yi. très bien te loolu nag mënuñu Benno Bokk Yaakaar la parce que ce n'est pas la première fois ñu def lu mel noonu. très bien 2017. toog nañu fii bi élection législative yi jeexee ñu nekk ci plateau télévision yi di discuter par rapport ak résultat yi jusqu'à vingt deux heures vingt trois heures ñu dem ñibbi jàpp ne euh, Manko euh, Wattu Sénégal bu ñoom euh, Barthélémy Diaz ñoo gagné à Dakar le lendemain bi ñu xëyee dañu gis journaux yëpp wax ne Amadou Ba moo gagné ndekete ci diggante bi con convoqué nañ conférence de presse mhm. joxe résultat yeneen mhm. yu bokkut rek yi ñu fa bàyyi woon bi ñuy dem mhm. la même chose ñu defaat comme ma daanalee foofu. mooy en deux mille dix neuf. Mhm. parce que voté nañu ba ci ngoon gi jé déggaguñu kenn koo xamante ni bokk na ci ab commission de recensement de mhm. vote mu taxaw wax. Mhm. ki nga xamante ni mooy premier ministre nekkoon le directeur de campagne du candidat sortant di Macky taxaw ne élection yi gagné nañ ko à cinquante huit pour cent ba ñu demee ba ca njobaxtal ga chiffre boobu nga xamante ni avancé woon nañ ko te ñu bëri jàppoon ne ba mu koy wax tegu ko fenn chiffre boobu la ñu ñëw. moom la ñu génnee génnewaat. très bien donc mu nekk quelque part ay euh, euh, source de tension. très bien puisque xaaruñu ci ñi nga xamante ni ñoo nekk au pouvoir. Mm. peut sax opposition bi war na ko mën a def xataraa yu ne. Mm. man maa gagné parce que jàpp na ne bu toogee xaar dinañ ko génneel ay résultats yu bokkul ak yi mu doon xaar. très bien mu anticiper mais quant parti au pouvoir génn. Mm-hmm. def une sorti di joxe résultats yoo mm-hmm. xamante ni ñu bëri euh, am nañ ci jeexi jaaxa. Mm-hmm. pour man moo indi. problème bi indi problème bi bu ko defee mu dem ci Basirou xam naa dina ci am xëy na tontu euh, bi wat waxee moom euh, euh, félicité na Antoine ci côté matériel ak yooyu wax ne matale na tey loolu itam lu ñu mën a gis la ndax Grand Yoff fii moom élection am ñuy voté di teg ay bulletins ci ay bureau ay ay ay briques muy loo xam ne sax dafa doy waar reetaan lu ci wax dëgg yàlla réew mel réewum Sénégal bu weesoo loolu itam mu rappelé ay faits yoo xamante ne yu fi xew la ma yokkoon ko ci sax. pour ñëw ci yow poser des questions euh, bi nga xamante ne Mouhamed Boun Abdallah na moo dem RT moom moo wax ci boppam ne élection dina am te lay am ci candidat du weesu cinq euh, mu weesu loolu mu demati moom ci jëmmi boppam élection am pare gu ñu mu dem joxe ay résultat résultats yëpp joxe woon nag la mu joxoon ci pourcentage daanaka soriwul loolu bu ko defee